waaye bu loolu loolu jàllee tamit réew mi dafa am ay taxawaay am na état am na opposition état boobu ak opposition boobu am na benn gàmmu sax maslaa nee ni wax ne leen ay ànd bon bokk xaw ma nan ay ànd nangam nangam yëpp amul solo ànd defar Sénégal lañuy ñu war a woote ñoom yëpp seet nu ñu defaree réew mi soowee réew mi man nag loolu dama cee ñàkk yaakaar barki dem bu ma leen gisee ci assemblée bi ñuy def yi fi gone ah nga xam ne xale yi sax leen bëgg a tari te peuple bi ñoo leen fal muy pouvoir bi ñoo leen fa dugal muy opposition ñoo leen fa dugal foofu nag nekk kër goo xam ne askan wi lañ fa war a toogal su loolu mënta am nag maa ngi def appel askan wi nanu dissoudre assemblée bi déloger député yi yépp ci bitti waaw ndax pouvoir boobu sénégalais yi moo ko moom ñun ñooy pouvoir bi Macky Sall du pouvoir bi opposition du pouvoir bi pouvoir bi muy nun ñii ñun na ñooy dajale sunu réew ak la ci bitim réew boole ko tënkaloo na biir beeg bitim bi yépp jox ku nu mën a doxalal koo ko doxalalul bu fekkee loolu am na nag te kenn mënul noo doxalal nan nu delloo sunu réew te it bu ñu delloo réew mi bu ñu defal transition boo xam ne day jaar ci armée bi ndax la am Mali moom du fi am mukk la am Guinée du fi am mukk soldaar yi moom àggagul ñun di leen jox sunum réew kon nag loole situation amoon na fi Touba gii bi mu amee ba tar ci diir bu gàtt la ko sëriñ bi lijjanti opposition pouvoir yooyu yëpp mu boole ko lijjanti ko man nag yeneen ya am muy yi nga xam ne moo nekk ci biir ndax économie bi sax boo ko seetee fi ne levier à deux vitesses la moom la économie Sénégal di doxe ñii ñooy am ñii duñu am ñii am nag dañuy am ñi dul am duñ am loole justice bi bëgg a mel noonu loolu du du am réew kon ñii nga xam ne dañuy opposé tamit ba ci yéen ñii képp koo xamee ne danga am candidat boo xam ne opposant la buñ leen nax buñ leen nax pouvoir bi buñ leen nax dafa laaj nag yooyee am competence yuy génn ci nit ñi ñu def rek la ne tekk pouvoir bi yéen la bu leen kenn reyloo ci mbedd mi bu leen kenn reyloo ci mbedd mi moo tax démb ma ne danañu wax ci suñu pas-pas waaye danañu wax na ci sunu réew mi bu nu kenn sonal ndax lii nu nekkee dafa war a mën a gën a wéy ànd ak xéewal Anda ak xéewal comme loolee nag daa war a gën a mën a wéy nag ak xéewal ñeni àndanteel ci réew mi nag di liggéey jëm ca ñoom ñooñee moo xam pouvoir la moo xam opposition la kum ci mënti doon dañuy set ka ka nga xam ne réew ko ñor moom it mu réew mi lay liggéeyal gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo mën a taxaw ne moom ci boppam mooy sangub nit ñi waaye mooy jaamub nit ñi ndax ci service yu nit ñi lay nekk suba ak ngoon kon nag état bi pouvoir bi nañu déglu nit ñi lu déglu gone yi wax naa ko bu yàggul ci seen campagne bi weesu bañ fa ñëwee may leen réew moo xamee ne ab gaas a nga fay xeeñ leneen fay xeeñ ba tey ji gone yi mënunoo am sax transport bu ñu fayee nañ leen jàppale koo xëy amul ndékki koo xëy amoo loolu lijjantee sa soxla te koo dégg na yaa ngi prévoir ci réew jàpp ne réew mi lii fi am lii fi am ma ne boo leen jàppul ci sëñ Tuubaa yi dara du neex